dal gi. waaw ci dal bi dama doon wax ne dama doon xool. xool tàcc yi fa lay gën a riire léegi yaa arbitré wax ma ku gagné. nawoon naa la bu jibi bu excès rek ñu yëg ko de. Ah, euh, waaw xam nga li ko waral nag ECOWAS ñëw nañ fi. waaye nag ah Gambie ak Sénégal lii moo wane ne. benn lañ waaw li ñu boolee bari. Euh, ñi fi ñëw yëpp Gambie ak Sénégal rek ngay ne Diop Ndiaye Cissé. Uh-huh. Saal Thiam ñoo bokkal li ñuy lekk ñu jooy boobu di ree loolu moo fi xew dëgg dëgg eh, ñun mi nga xam ne Gambien lañ sax kontaan nañ ci liñ teeroo Macky Sall eh, parce que nag dëgg dëgg eh, ku la okk nga xuri ko ñun Gambien nag koy delloo njukkal moom Macky Sall mu ngi ne waxam bariwul wax dëgg yàlla ñëpp xamee nañ ko loolu Sali uh, eh, suñu spécial guest baango France eh, président bi la waaye du moom bu kanam kam di kayin tenor ak di bu jongoro président Macky Sall na ringulo ring di bay yomo keti mo xamé ci Gambia mokane ukawa ukila won manju woji jam ñaanam a Macky Sall rimulo ɗum mamanji mettititore ayti gambia di sénégal fiyopyo ko boobo koko bilum manku purenum sénégal di gambia tokkon bara gambia di sénégal piyopyo casamas ɓuri jaa fooñi le tumanji mante casamas tatere wonde pooñi taate e reen woto babal cuko ña president adama baro chef arinoy aringulo dia kono no mana limu taate dimo fameti independent me mais ti mbakaw eh, banu manjum bonate be ni fi me kuni pana kanu manjum ko ko wala ko wala burom ko wala wal makki sal nana ngulo me ko wala no wala nanga nga fulaka fola ñana la fola ko woto fam bu yisenu na man yitenu men ayja baraka bari baringolo kono wa makka wa president

ñëw tiim cortège bi aéroport ba ba ba ba ba fu Macky yegg ñu pour pour loo xam ne dañ ko tiim mama ñu dem toog mu ma yow France nga su général bi nu jox autorisation ay ca ñu dem rek def nañ ay ca dama leen annoncé Macky Sall bi Macky Sall bi ak te mbokk pël yi war so andi kan kadi o laamu sénégal o laamu euh, laamu lii moo nekkoon cortège yu démb bi accueil bi accueil bi moo nekkoon nii hélicoptère bi wër ko hélicoptère bee ko tim ko filmer nii hélicoptère bee koy filmer ñu gis ñu gis ne nekk na koo xam ne 2S daal bàyyiwul dara bàyyiwul dara lépp tiim sooda nga sànni ci kaddu waaw kooku moo def couverture maladie universelle ku feebar faju ku mu jàppale rek am ci yow yaakaar président yërmande baa ngi noonu Samba Mariam moo la baro ceddo jéeri waaye damay tàmbalee nag première dame di jeexale première dame di ñu teg nag Alaaji Njaay mi nga xam ni moom moo waral xaaraam mi ndax moo toggantu.